ginnaaw ab sorti boo xamante ni def na ko ci chaîne bii di Dakar Buzz ndaw si nga xamante ni mooy Fambaye Mboup dëkkee fële ci diwaanu Dagana ay atam toll ci ñaar fukki at ak juróom moom moomu nag di fambay Mboup nag mu ñuy xamal ni daal sonn na lool mu ñuy xamal ni li nga xamante ni moom lay peese ci ay kilo ëpp na 300 kilogrammes moom Fama Mbaye Mbuub boobu nag dem na sax bay xamle ni que ni daal jamono ji tar na lool ci côté am ndaxte moom sax mi ngi ñuy xamal ni lépp loo xamante ni yitte woon na ko rek fi nga xamante ni fa la toog fa koy defee moom nag mu bëgg a jugee fii ci Sénégal dem ci réewum France ngir mën a def opération mën a faju waaye nag loxo moo jotul digg ginnaawam ñu dégg ko nag démb mu doon sàkku ndimbal waaye dafa mel ni nag yaakaar am na ndax kii nga xamante ni nag moo di doomu Thione Balago Seck di Wally Balago Seck ginnaaw information yo xamanteni jot nañ ko mom de mi ngi xamle ni que ni dal dina jël engagement dal di joxe 15 millions yi su ko defee ki nga xamanteni modi moo Fama Mbaye Mboup meuna dem France dal di faju ji